waaw champion ñu ñu ñu fort ba démb rek récemment li nga xamante ne mooy affice bi ñëpp doon xaar ñëpp doon ko waxtaanee Modou Lo Ama Baldé taxaw na euh, ban analyse nga ci def noo gisee làmb jooju. Eh, làmb jooju làmb ju neex la sax billaahi làmb yooyu mooy dellusiwaat làmb mooy dellusiwaat waaw làmb làmb ju neex la loolu moom bu taxee dañ si am kontaan quoi di ñaan yàlla si yàlla yóbbu ak jàmm que le meilleur gagne yàlla yàlla yóbbu ak jàmm ku daa ko bëree ku daa xeex ko fit yàlla may ndam làmb ju neex la daal bu dellusiwaat làmb parce que Sénégal yëpp ko bëgg wax dëgg yàlla. Mm-hmm. billaay wallaay. mais mm. ko xam Jax xam ne ndaanaanu làmb la lan nga gis rek tey sa analyse ñaaru mbëri côté côté xeex côté bëree kan moo ci ëpp avantage. Ah, ñoom ñaar ni ku ne mën na daal sama morom parce que Ama Baldé gaynde la mm-hmm. moo loolu tamit noonu la gaynde la day def fula da faayda ñoom ku ne mën na daal sama morom ku jum daanu daal. ku mu la déggee cinquante cinquante la. waaw loolu laa joxe parce que ñoom ñaar ñëpp ñoo toll lépp daanaka moo la am na fit mën na bëre waaw am na ginnaaw Ama Baldé am na fit mën na bëri am na ginnaaw waaw di wax nag nga bégal ma sama secrétaire bu baax a baax Mame Seye lépp moom ma koy defal moom mooy fóotal moom mooy toggal moom mooy defal lépp sama secrétaire jàllaleel ma lii Mame Seye bu loolu weesoo tey boo am loo doon moytuloo ñoom ñaar ku ci nekk lan nga koy moytuloo ci sa adversaire waaw Ama Baldé moom moo koy wax maanaam muy kon mu doon bëree mu kon di ko bëree comme attaque attaquant la mm-hmm. bu mu bàyyi la mm-hmm. waaw boo ko xaaree mën am dara tamit. Ah, waaw moom daanaka la da lay tee moom bu xaaree tamit mën na gis bunt mën na mën na jumla Ama Baldé hmm. mais Ama Baldé tamit bu mu la moom du ma déglu Modou Lô hmm. mooy xale te am na doole te bu moo bëgg. Hmm. nañu war a yu xale daf yu fa xale. waaw ah, mais buñ dajee loo gis bëre bu sew mënu ci am. no loolu dina neex ñoom ñaar laamu ñu neex la lan la a ah, la. waaw ñu lay jaajëfal baax jaajëf <laughs>